ba nañu gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon sëriñ bi yarnu yornu bu ñu réew sëriñ saali yarnu yornu bu ñu réew ay mbakke bun doxitam di wërim réew te nu sax ci loo wax ñu ne waaw ngir bëgga am sa yërmande sëriñ saali mbakke te nga xam lu yoon wi ba mu weex ñu di ci aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis te néegi yërmande الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. sant naan ko tàddi ni am na fu mu waaye amul fu am na bidaaya waaye amul nihaaya. ñu ngi jéem gudd ni nga xam ni ñu dayal mu seen xaside yi ak sekar si sëñ asan diouf kuréelu xaside yi ak waa këns waaye ñeere organisation bi tam tam bu heure bii jotee ñu taataan ay kàddu yoo xam ni danañu mën ci téye ba maa ngi sant ku tedd ku biir ci jataay bii jataay bii nga xam ni lu mat ay at ñeenti at ci kaw teraas bii fa la daan amee guddi gii kaw terrasse bii daaw kaw terrasse bii lay am waaye li tax ñu wàcce ko ñaar la ba ci njëkk mooy daayira boo leen woowee ak boo leen woowul xajatul ci barab ñetteel ba mooy dama yedd saa bopp ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy dama yëg ni Serigne Saliou dafa bàyyiwal xel ñaari mbir guddi gàmm ak téereb sama borom bii di alquran karim ma gis ni guddi gàmm mébét mam ci bàyyi te bëgg ko ca Serigne Cheikh tey def loo xam ni xam naa sax lott nañ ci def ko ci téere bii di alquran nga xëy da bëggoon lool loolu moo tax ñu am pas-pasu guddi gi nga xam ni ci la alquran wàcc ñu fas yéene nag yaatal ko ngir ngir delloo njukkal Serigne Saliou mi nga xam ni dafa fonkoon alquran ñu fonk laylatul qadar fonk goo xam ni képp ko xamanteni bi ni laylatul qadar jot na da nga yëg ni Serigne Saliou bu amoon ci ci alquran la da loolu dum baye bàyyi ginnaaw da te ni baye bàyyi ginnaaw ñoo commencé motax mo fasiyene dekka yéenee dekkal laylatul xadar te ngir lan ngir ngir ñu jangat ngir ñu jangat ni Serigne fonkon na ñaari mbir Gam, ba bu daan wote magal da ko ciy Al ku fonkon alquran la te guddi gi ci da alquran karim wacc laylatul da nay dégg ñu ni yalla tuddu na ci alquran tuddi ñu leer inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar do ko wax ni laylatul qadar خير من ألف شهر دائماً تنزل الملائكة ما تحمل خير دائماً دائماً والروح فيها جبريل مي عندك ما تحمل خير دائماً دائماً بإسم ربك دي اللي تتعب ما تحمل خير دائماً دائماً السلام هي لكن متنعكم الجام دي متعب تقول دي ما تحمل خير دائماً alxadr xadr dañu ko firee dogal waaye xadr danañ ko firee daraja daraja waaye xadr danañ ko firee xaqa wa man qudira alayhi rizqa xadr googee wërsëgu wàññeeku li fi xadr danay firi dimension tolluwaayu nitu gaa yu baax yi wa maa qadarullaha xaqa qadrihi wa maa qadarullaha xaqa qadrihi xadr nag baat bi secret bi ci la ci la ci la lépp nekk moo tax gaa yu baax yi di ko wër sëñ Tuubaa xam na kañ la guddi laylatul qadar waaye jamono bu nekk day suuraale day suuraale digganteem ak rasulullah ndax sallallahu alayhi xam na kañ la laylatul qadar waaye dafa nëbbu laylatul qadar nu ngu ko wax kenn Sëriñ Tuubaa nag comme dafay roy rasulullah yi nekk xaadimu rasul du mën a leeral kañ la laylatul qadar moo tax guddi kii ci yoonu murid joxe jox na ko ñaari nit jox na waa Mbusoobe guddi gu ñu war a màgg laylatul qadar muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ñun murit yi tam mu jox nu calcul boo xam ni mi ngi dépendre ci bis bi weer wi feeñ lakkazun niyatun sahakun rayas xukkajun jukkatun sahakun mayes noonu la ko calcul léegi nag bi suñ mbàkke bu sa ñëwee ni ko mbàkke kañ la laylatul xadar mu jël benn kii daal ci bind lakkazul lakkazul mooy bu fekkee ni lakkazul mooy guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar la nag mu ni lakkazul jël laam gi jël nuun gi jël saa gi jël raa gi jël jiin gi jël di rat saay lenn lu ci nekk mu toftal ko ci baat yi ay calcul la nee bu fekkee ni weeru koor bi dañ ko lekk zul al ahad maanaam bisu dimanche nee na nga xam ni laylatul qadar gi jàpp ko ca kësul jàpp ko ca guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar niyatul al isnayni nun gi la soxla bu fekkee ni laylatul qadar dañ ko séentu bisu altina jàpp ko ci yetum guddi fukki fan ak juróom-ñeent 19 jours nee na bu fekkee dafa feeñ bisu solasa ak talaata nee na jàpp ko xëkkul guddik ñaar bu fekkee da ngeen ko séntu bisu na jàpp ko reyes guddik fukk ak juróom-ñaar bu fekkee da koo séntu nag alxamis neena japp ko ke judd guddi ñaar fuk ak ñaar neena bu fekke dal ko séntu bisu aljuma muy jubratul neena nang ko japp guddi ñaar fuk ak juróom-ñeent xey suba ñu seeti weer neena nak bu fekke da ko koo ko nga ko da ko koo ko nga ko gis bi da ko gis bisu samedi muy muy yow ma sabti sa siin gi la jën nee na sax akun la akun akun mooy guddi gii ñuy màggal tey. bi ku tedd ki wax ci laylatul qadar dafa doxal ak maanu bañ na ko ba sax indiwul kalkiri boppam dafa jël waxi imaamul xasaali imaamul xasaali yu. dafa calcul laylatul xadar ci mi ngi aju ci bis bi nga xam ne ci la ñu um koor nee na ci la ñuy xam kañ la laylatul xadar laylatul xadar bi ko yonente bi bañ a xam la ko gars yi baax yëpp bañ a xam keroog bi bi bi ku waxee yonente bi saa sallam ni xamul guddi laylatul xadar kenn xamul ban bis la doonte xam na ko moom keroog la gars yi baax yi wéeru ci moom ñëpp maase umpale guddi Laylatul Qadar donte Sëriñ Tuubaa umpalewut guddi Laylatul Qadar waaye ay tegginam digganteem ak rasulullah mahabba gi dox digganteem ak rasulullah sallallahu alayhi gi dox digganteem ak rasulullah moo tax moom it mu nëbb guddi Laylatul Qadar te ñi mu njaboote ñii mu jox leen ab dàq ñii mu jox leen ay calcul laylatul xadar amul kenn koo xam ni yaa koy def ba noppi mën a sukkandiku ci ni tey la laylatul xadar tey la laylatul xadar laylatul xadar sunu borom daf ko nëbb am na ñu ko xamal waaye ñu ko xamal comme sallallahu alayhi wa sallam dafa nëbb laylatul xadar moo tax ñoom it duñ feeñal guddig laylatul xadar te loolu daa mat di bàyyi xel laylatul xadar ñëpp maase wuñu dëppoo ci ni ci fukki fa yu mujj yi la nekk imaamu shafii abu xanifa imaam ahmad ñoom dañ ne laylatul xadar génnul weeru koor te laylatul xadar rajo du nekk ci lu dul fukki fan yu mujj imaamul xasaali yu imaamul xasaali yu moom daf ni laylatul xadar mën na nekk ci weeru koor mën na génn itam weeru koor mën naa nek naa nekk ci biir weeru koor mën naa nekk sax ci beneen bis bu dul weeru imaam Malik mi nga xam ni ngiram ci lañu sukkandiku ñun ci lañu tënk imaam Malik nee na laylatul qadar man na nekk ci weeru koor man na nekk ci dudul weeru koor waaye bu dee nekk ci weeru koor lu ëpp ci li muy nekk ci fukk fan yu mujj lay doon te loolu lu mat di bàyyi xel la Cheikh Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane Sarif mii nga xam ni moom taalibe bi dañ koy màggal guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar am na bis ci faas boo demee ci kasul xumma moo ko bind am na bis ci faas bu ngeen di màggal ñu ne ko xanaa laylatul xadar mun leen ku leen wax tey la xadar daan leen di yeewi ay taalibeem bi nu demee ba génn weeru koor bi nee nañ sax am na ñu ci weeru saabaan mu woo leen yow leen est xam ngeen ni tey jii la laylatul xadar booba dañ doon wane ni laylatul xadar mën na nekk ci weeru koor mën na nekk ci fukki fan yu mujj yi mën na génn sax weeru koor donte li ëpp ci ñoom li notu mooy dañ ni laylatul xadar ci weeru koor lay la am te ci fukki fan yu mujj yi lay lay lay nekk dañ koo xam daan loolu la mën a amee ndax alquran ni wàcc ci weeru koor alquran ci weeru koor la jugee lawhul mahfuz ñëw baytul izza lañ la wax ci weeru koor la law lawhul mahfuz ñëw ci baytul izza bi mu ñëwee baytul izza danañ wàcc nag étape par étape maanaam événement par événement la doon ñëwee situation bu nekk rek ak na mu koy réglé te loolu daa waaye li am solo mooy Serigne Touba ndigalam lépp jariñ na saa yu joxee ndigal bu ñu woon laylatul xadar ma nga ca weeru rajab sax bu bis ba mu jox bu ñu ko jàppee day caa ngërëmal sama borom. donte donte doxale na war ma digganteem ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ñu war a firi te war leeral mooy li ñuy tuddee alqadar ba tax yàlla nii lay guddig laylatul xadar guddig laylatul xadar ci lay régler situation yi jaam ñi ci lay lijjanti seeni mbir bu ngeen gisee jotaay bi ma fonk ko xam nga alxuraan daf ni guddi gii ci kanam tuuti bu ñu ba cinq heures vingt jàpp cinq heures dañu wax ni malaaka yi dañuy wàcc ci suuf ba indi embouteillage seen diggante te du ngeen leen gis ngir ngir ngir ngir tasaare yërmande sama borom waaye ñun xam na ko fii xaar ci kanam te billaahi dañ koy gis mooy Serigne Sary loolu du waxi daanu kat moom ñun dañ koy xaar fii rendez-vous la chaque année ak am am moom te dañuy fekk fii te suñu fekkee fii yufraqu kullu amrin hakim ji alquran wax ci moom lañ koy xaar yufraqu kullu amrin hakim ci moom lañ koy xaar ndax wa gaay gaay yàlla yi dañuy tux rek waaye sax seen zahiriya seen xaqiqiya moo ko gën a dëgër maanaam la ñuy man seen ginnaaw dara naka duñ ko man seen kanam ngir lu bari te bu fekkee mën nañ ko tuddee wàlliyu ci sunu ci sunu xam-xam ci tur wi ko mën a woowee ci digganteem ak boromam ca la ca xam nitu yàlla ku toll ni moom defal nu teraanga ju toll ni saa yu leeratul xadar jotee su fajar ji xaree bu mu toogee mu teew ci sunu xol yii ba fees del ba kenn ku ci nekk xam nga aajo ju faju nit da koy yëg aajo ju faju maanaam moo koy yëg ak texe ni nga ko yëgee loolu nga yëg aajo ju fi ne kii faatu bu naree texe bala moo faatu dina xam ne daa war a texe nit ki bu ruuxam war a tàqalikoo ak jëmmam bala moo génn àddina dana xam ba xam day texe wala day texeeti léegi-léegi ngay ñaan sa borom da xam ndax ñaan gi aajo ju faju la wala déet loolu dañ koy xam suñu diggante ak Serigne Saliou waaye li jar a bàyyi xel mooy li tax guddi gi màgg muy li ñuy tuddee muy muy muy laylatul nga xam dañ ne xayrun min alfi shahrin maanaam yiw wi ci nekk wuutu na yiwu jaamu yàlla junni weer maanaam junni weer yoo xam ne nga toog sa borom genn guddi gii di guddi laylatul qadar man nga cee tonaw loo xam ne boo maanaam maanaam boo doon jaamu yàlla junni weer bu am ci guddi gii di guddi laylatul qadar laylatul qadr nag dañu wax ni alquran moo ci wàcc jóge ca lawhul mahfuz dafa jóge ci sunu borom ci matam ak mandoom ñëw ci lawhul mahfuz jóge ci lawhul mahfuz ñëw ci baytul izza jóge ci baytul izza di wàcc ci dënnu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp dëppoo ci ne aaya ba ci ab dënnam mooy iqra بسم ربك الذي قلع خلق الانسان من علا نيل اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم لك علم الانسان ما لم يعلم القران وخي يالله نيار اقرا بين بي اسم ربي بين دوك ورب وربك الاكرم خمسة باتو رب لومي تك مو تربيه يا yar ñaari iqra la ko wax benn da ko ne iqra benn mu ne ko ismu rabbik ndax aarifuni qabla an taabudu léegi wa in lam taarifuni fa kayfa taabudu bala nga may mën a jox li ma moom da ngay xam fi may jaar bu xamul fi may jaar mooy xamee laa moom bala nga may mën a jox sama cër da ngay xam sama cër bu xamul sama cër noo ma koy joxe bala nga may mën a da ngay xam fu ma ku xamul fu mu toll noo koy takkee موضح اقرا باسم ربي بلا داري خو خمال يالا خمال يالا اسم ربك بو مجفنديكو موي اسم الله الاعظم ndax moy miftah القرآن تي بوي جولي سي بيرو جولي mokkaloo sóoratul fatiha julli ko du wér booy lekk ñun la iqra ismu rabbik booy naan ñun la iqra ismu rabbik booy julli ñun la iqra ismu rabbik booy dugg sa néeg ñun la jiitalal sa tànkum ndeyjoor te iqra ismu rabbik lu tax parce que da ngay wax bismillah ku tedd ki waxoon na ko samallaahu kul bi yaminika wa kul mimma yalik benn xele bu ndaw ni ko booy tibb ñam def sa gémmañ da nga naan bisimillahi rahmaani rahim da ngay tudd ismullahi ansam mm-hmm. te mooy bisimillahi moo tax ku tedd ki balay danay xew iqra ismu rabbik xamal sa borom jàngal sa borom jàngal sa borom mi nga xam ni moo tax nga sotti iqra ismu rabbika alladi xalaq nga xam ni xalaqal insaana min alaq xalaqal insaan aadama la ci jublu xalaqal insaan aadama la ci jublu xam nga doomu aadama su xoolee boppam danaa man de daa mel ni kullukum min aadama te dafa mel ni wa aadama min turaab man léegi lu may def ba réussir mission bi xelam ni ko xanaa inna akramakum indallahi atqaakum kullukum min aadama li coow li di bëri bëri ak li juddu bi di rëy rëy ndekete man aadama ma meññ te aadama suufa ko meññ aadama ma meññ te aadama suufa ko meññ nga tàmbalee xeeb sa bopp nga ne nu may def nag ba yilif lu dul man ñun na inna akramakum indallahi atqaakum teraanga yàlla mi ngi tàmbalee ci nga xam sa bopp moo tax iqra al akramu mooy teraanga gi gën a kawe ci fas ci waxiinu euh, sunu borom ci alxuraan inna akramakum indallahi atqaakum moy ki gëna tedd ci yéen moy ki xam liko war ta nek ca moy ki xam liko war ta nek ca tay li la war li la war nga war ci nek moy balay daray xew nga jàng sa ci sa borom borom noppi iqra ismu rabbika alladi khalaq xalaqal insana min alaq da bëgg nga bañal a sa bopp rek iqra wa rabbukal akram bo xamé li xew yëgalal nit ñi li xew iqra wa rabbukal akram bo xamé li xew léegi fexeel nit ñi xam li xew ndax baax balaa balaa balaa ñor ma baax balaa ñor daa tasaaroo baax bu yemee ci sa bopp képp googa baax baaxut moo tax booleel ñaar iqra ismu rabbik waaye iqra wa rabbukal akram moom mi nga xam ne allazi allama bil qalam loolu yaakaar naa ni ñiy jëfandikoo technologie ci jamono bi ñu toll xam nañu ko sunu borom ku barkeel mbind la ku barkeel mbind la mbind yàlla daf ko barkeel moo tax ñaare buy wax sax li ëpp ci ay waxam day jiñ day jiñ te xalima xalima gi daw ci law ko maxfuus ndax sunu borom ku fonk xalima la ku fonk mbind la allama allama bil qalam te it allama al insaan maa lam yaalam ndax bim ne dama bëgg a wut khalifatu xalifatul ard inni jaalun fil ardi khalifa dañ ko tontu atufsidu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tontu ba moy inni alamu ma la ta'lamun te inni alamu ma la ta'lamun gogu mo xon bim ko tabale ci adama jox ko question yi adama tontu dañ dañ koo xamal ni ko ñun xamuñu lu loolu xamal moo tax bu ne xam xamal naa nit lu mu xamul woon allama al insana ma lam yaalam moo tax ndeysaan kalla inna al insana la yatqa an ra'ahu istaxna inna ila rabbika rujaa sëriñ Saaliw Mbakke ba gaaña fi nekkoon jàpp la yaa gëñi di koon yow mi nu may kun fa yakoon gaawe nu ngir sa yërmande sëriñ bi yaru nu yoru nu bu ñu sëriñ Saaliw yaru nu yoru nu bu ñu ay Mbakke bun doxitam di wëri réew te nu sax ci loo wax ñu ne waaw ngir bëgga am sa yërmande sëriñ Saaliw Mbakke ña nga xam lu yoon wi mu weex ñu di ci aw te bu ñu xeex te bu ñu yàgg bu ñu jeex ba gis seen gi nga fegal nu déggu gaaw ak rekki ga mag déggu ñaaw seen saxtu la wax nu ne waaw ngir bëgg a am sa yërmande te nga yóbbu nu jannatul ula Sëriñ yóbbu nu jannatul mooy kër ga amul tiis ak boole noo kulal malaa kulal malaa mu wan nu gën gi yërmande sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci ba dee sëriñ Saaliw Mbàkke yal na nu sax ci ba dee ay sëriñ Saaliw nga nun bañ dee leen nu ëddër ma tëdde ngir yàlla ak sëriñ saaliw te nga may nu wër dër walaal ay mbàkke bandi yot loo mën a laal defal nu gaañu ku nu laal ku nu laal rëccu ko ngir sa yërmande man de li may ñaan li may ñaan jàlla jàlla loo ñu dem bay ki laay àndandoo nanu àndandoo ba ca bay bi laa